Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer liman sa'sal yamma kama sa nasaka damonin asafal an misaalu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi walsalaatu wassalaamu ala haadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di sant sayxul xadim bu baax te yeesal sunu jaayante ci moom di sant borom bi bu baax di wax rek alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi ñaan sottil naal bi nga xam ne moom lañu fas yéene naalal islaam te fas yéene ci bay ci toolub lislam ci wàll gi nga xam ne képp kuy ab jullit sa yitte daf caa war fes lool sa bëgg daf caa war a fes sa jublu itam da caa war a fes nu ñaan yàlla fas yéene tàmbali ab liggéey wala bokk wéyal ab liggéey boo xam ne naka jekk koy baax yépp ci lañ nekkoon waaye rawatina nag ci dëkk bii nga xam ne boroom daf koo sanc sañc ko ngir jaamu yàlla ak liggéey te soo ñëwee ci dëkk baax na ci lool nga xool la borom dëkk ba bëgg nga nekk ca te ku nekk fii ci tubaa fas yéene liggéeyal Serigne Touba te jaare ko ci alquranul karim loola luñ mën a rafet njort la ñu am mbégte nag bu baax ci bokk ci ñi koy jëmmal bokk itam ci ñi nga xam ne ñoo koy def te sunu mbokk woote ko sunu mbokk nag ci lañu ca gën a ñor mooy pas-pas muy pas-pasub lislaam muy li ñu boole te nu fas yéene koo ànd te yàlla rek tax nu ji sant yàlla bu baax ndax nit ku sañoon kuñ lay tudd di ko tudd loo koy dégg wala nga koy gis lu neex yàlla lay doon loo xam ne luñ mën a wane fépp lay doon itam nu sant yàlla bu baax nag waaye duñu mën a tàmbali sunu ay kàddu te sunu xel nag demul ci juram sëriñ Saalix Sàmb nga xam ne lii bu ko bu ci bu ci bu ci xal yu nekkee di ci nab nabi moom moo ko ci nàmpatal moo ko ci xiirtal doonoon itam ak bëggam mu sa bëgg mu yëngu ci lenn lu dul lii kon bu yàlla dogalee mu dem ba am mébétu gën a yaatal ab liggéeyam gën ko dëppale ak jamono kon dañuy wax rek alhamdulilah ndax la way juróom ma bëggoon mu nga ca loola nuy sàkku ci bokk yépp nu bokk ñaanal ko ci ba mébét mii mu ci am suñ borom defal ko ci tawféex ndax xaarul rek ba tey jot mu jóg rek ne day def lii waaye yàlla daa dogal mu nekkoon ca taxawal daara di ci jàngal ay gone ba am na ñu fi bind ay kaamil am na itam ñu fi mokkale ci aw góor ci aw jigéen itam kon bu yàlla dogalee nag mu dem ba bëgg koo gën a yaatal kon loola dañ ci sant te ñaan rek yiw wuñ ci amee sunu mboroom jox ca way juróom woowee lu ko doy sëkk te bàyyi fi njaboot gi bañ yàgg ko ñaanal te yàgg koo def kàddu yiñ ci wax itam mooy soññ ko rek moom Aliou mu xam ne nekk ci la nga war a nekk jullit bu ne looloo war a doon sa yitte looloo war a doon sa jubluwaay itam yoon wi mu tànn nag ngir fas yéene ce liggéeyal sëriñ bi di lu neex borom dëkk bi lu neex itam sëriñ bi doon itam loo xam ne comme ni ko ñëpp xame rek buñ delloo ci hadis boobu di wax ki gënal yàlla ci jullit yi mooy ki jàng alxuraan ba noppi wëlbatiku di ko jàngale xayrukum man taallama alxuraan wa allamahu kon bu ko ci yàlla dimbalee mu nekk ci loolu di ci nab na bi nuy sàkku rekk ci ñépp nu bokk ci ñaan te bokk ci itam jàpp ndax mbir moo gis nga nekk ca di ca yëngu danga ca soxla ndimbal ndimbal nag buñ ko waxee dafay yaatu yaatu ci wàllu yëpp ndax nit dana soxla boroom doole dana soxla boromum xel dana soxla borom am-am dana soxla itam boroom yitte dana soxla itam koo xam ne daf koy dimbale ci wàllu aw doxin ci wàllu xalaat ci wàllu lépp rawatina nag ku sumb liggéey bu toll nii kon daal ñu ciy woo mboolem jullit yi képp ku bëgg a liggéeyal sa borom daal ci wàll wi nu la ci woo ci anam boo ci mën a jàppe nga jàppe ci noonu rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal ci wàllu deret bokk ñoom ci wàllu pas-pas bokk ak ñoom ci lépp mboolem fu mbokkam nekk nañu xam ne bu nekkoon ci leneen itam ñi bokk moom duñ ci am pexe waaye duñ ko tax du tax ñu sànni ko du tax ñu bàyyi ko itam bu ko yàlla xiiree nag ci jëf lu baax ak di ko dox kon dafa war a doon lu ñuy tiitaroo dafa war a doon itam lu ñuy sagoo kon na ci ñëpp dugal seen loxo te xam ne lu baax ndaw lu jóg ngir nekk ca dañ ko caa war a soññ war a fexe ba mu am ca xel mu dal xel mu dal moom cay am nag mooy yem cay bëgg te mënu koo ñàkk ñu fexe ba di ko ci taxawu muy sàkku ci ñëpp rek képp kuy dégg sunu kàddu daal mbir mi nga xam ne so sumb na ko muy daara ju mu war a tabax te bëgg mu gën a dëppoo ak jamono bëgg itam ndaw yi fay nekk seenu nekkin gën a ñoŋ seenu nekk itam gën a gën a gën a gën a gën a baax ñoo ngi ciy sàkku fu waaye nekk tey dégg sunu kàddu rek loo ci mën a jàppee nga jàppee ko ca bañ bañ taxawaat fii di ko ubbi te loolu yàlla mën na ko te ñoo ngi ñaan yàlla mu bañ a yàgg noo ngi ñaan itam mu doon lu sotti te ñëpp gis ci seen bopp te suñ borom defal na ci tawféex ba njort liñ ciy am ci lu baax ndax ndaw la te fas yéene fas yéene tàmbali la muy tàmbali itam mooy da cee jublu def lu baax rek kon def lu baax nag ku cay ku cay dugg képp kuy jullit daal nu ngi lay tàllal sunu loxo di ñaan yàlla mu sottal ko ak jàmm te ñi fi nekk itam mooy ñi fi nar a nekki ak ñi fi ñi fi nekk ndax tëbul tëb rek ne day def lii waaye daf cee nekk ba am fum ci toll bëgg koo yokk moo tax mu bëgg cee woote bëgg ñëpp dugal ci seen loxo te jàpp ci te xam ne lu lu ci waay def daal suñ borom moo tax nga def ko ñoo ngi ñaan lu ci waay def nag suñ borom fay la ko ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax suñ borom dolli koo sàmm te taxawu ko bu baax ba yéeneem ji mu ji mu ji bëgg def suñ borom mottalil ko ko te mu ànd kook ñun fas nañ ci yéene daal ànd ci ak moom ci ci ci ci wàll yëpp fas nañ ànd ak moom ci wàll yëpp ndax li ñu yàlla boole xam nañ ko te li ñu yàlla boole itam jàpp nañ ko te dañ koy tiitaroo ndax ak ab yaram ak yitteem aku melokaanam ndax bu meloon neneen itam xaw nu jàpp ko kon alhamdulilahi rabbil alamin ba mu nekkee ci li nga xam ne lu yàlla gërëm la noo ngi ñaan yàlla mu sàmm ko te musal ko te àggaleel ñu ak jàmm ba ñu toogaat fii di ko di ko ubbi te ñun ñëpp ñu fekk ko ci barkeb Seexul Xadim yàlla mën na ko yàlla nu ko yàlla defal noo ngi nuyu mbooleem ku nekk ci tànt bi di di leen siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay nii ngeen def itam yitte la noo ngi leen ñaanal itam yàlla fay leen te yokk seen i xewal bu baax a baax liggéey baa ngi noonu ñun ñëpp daal nañ ci jàpp te fas yéene mu àgg ci jàmm te am teñ amee ko niñ ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu toog rek ñu àggale liggéey bi ndax jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Fallou mbake ci teewaay bi baax a baax a baax ak itam la ñaanal bu baax yaag mboolem ñi nga àndal ñëpp taxawaay bi gën a yàgg lool ci barke alquran kon di sàkku rek ci mbooloo mi ñu. may ñu ak dégloo bu baax lépp looy joxe lu jëm ci yàlla saa boo gëstoo gis tu tànk boo ko jox soo boobaa yow war ngaa sant sa borom ndax bari waa nañu baree bari ñoo xam ni bu ñu sañoon am daara ju nekk seen wet saa bu seeni doom bëggee jàng alxuraan ñu jël seeni doom yëpp ci daara ja yow nag bu yàlla dogalee daara ji ñëw ba ci sa bunt kër nga xam ne boo taxawee ci sa buntu kër boo waxee ak sëriñ daara bi sëriñ daara bi dégg leen kon yow war ngaa sant sa borom ndax gis nañ fi ñoo xam ni dañuy gàddaayee ay dëkk yi dëkk ngir wuti alxuraan kon yow bu yàlla dogalee alxuraan ñëw ba ci sa wet ñëw ba ci sa ron mu nekk fa. kon yow war ngaa sant bu baax sa borom li Serigne Fallou wax léegi rek moo ci nekk maanaam Serigne Aliou Samb li tax ñu naan ab Serigne Daara moom ci la nekk ab Serigne Daara li tax ñu koy wax lenn rek la mooy jàngale ak tarbiya te moom loolu ci la nekk bañ ko xamee ba léegi mosu cee bañ na ko ba waxtu jàng sax boo koy woo doo ko ko xam si ñaari sàmm dëgg doo ko woo waxtu jàng xam dëgg laa wax doo ko woo waxtu jàng kon kooku mooy firndeel ne tax ngeen di jël seeni doom jox ko moom mi ngi ci. beneen bi itam mooy waxtu bu nekk mi ngi tërbiye gone yi di leen yar fexe ba ñoom ëllëg ñu nekk ay exemplaire nekk ay jaam ñoo xam ni képp ku leen xool. defaru njëkk ñuy waxante ak yow njëkk ñuy mubaashara ak yow loolu mooy loolu mooy loolu mooy tarbiya bi ëpp solo te moom ci la nekk li sëñ wax léegi rek lay lay lay firndeel sëñ Aliou tëbu tëb rek samp daara bëgg daara ji àgg ci yenn bërëb bi faaw am na ay étapes yu mu war a jaar étapes yooyu nag mel na ni jaar na ci ay jaaruwaay yu baree baree bare ba am ci étape bu mu toll étape bi mu toll nii bu ko mënaloon boppam moom da koy def te kenn du yëg ne def na ko waaye li tax moo woote nag mooy yéene leen aw yiw moo tax ma woo woo gi mu woo nag kenn ku ci nekk yaay xool bërigëb diw bi naka nga ci mën a fiiyee maanaam naka nga ci mën a niinee boog la bëgg wax bu leen yaakaar ni ni daara baaxoo bindoo amu ci benn sëriñ daara boo xam ni am na lenn lu muy tiit ci àdduna ak alaxira bu dee li mu war a nekk dëgg-dëgg mi ngi ci ndax suñ suñ daara foo xam ne barakatul quraan yi faaxal zanna barkeb alquran kawe na njort te kawe gi mu kawe nag maanaam tabax ay daara ba mu mucc ayib moo ci gën a ndaw waaw maanaam barkeb alquran tabax ay daara ba mu mucc ayib moo ci gën a ndaw te it mbokk yi da ngeen xam ne bëriwaa na ko daara jege lool bëriwaa na ko suñ borom dénk te la mu koy dénk mu koy tabbal feneen foo xam ne wóor na ko nañ ne bu ko tabbaloon ci biir daara ji te yaa ma day dem adduna dem alaxira waaye danaan ko fi ñukk dem ca leneen la nga xam ne jàpp na ne boo ko defee ñu jàpp ko di ko taggal ay maamam ak i baayam te jàpp naa ne loola mën naa ñàkk. kon li nga xam ne moo ëpp solo mooy kenn ku ci nekk li nga xam ne moom la sëñ Aliou wootee képp koo xam ne maanaam moom dafa tàmbale rek waaye suñu borom moo yàggale daa tàmbale rek te tàmb tàmbale gi mu tàmbale ci alxuraan sikki sàkk amul ci ne incha allahu rabbi dana àgg kon nag képp koo xam ne bëgg nga fépp foo mën a nekk yiw wi di la mën a fekk fi nga nekk ci àdduna feneen foo mën a nekk da ngay tàbbal saw ñàq ci liggéey bi du nag loo xam ne dañ koy woote ngir dara déedéet déedéet dañ koy woote ngir bëggal leen lu baax ndax alxuraan ki ci nekk di ci xëy suba ak ngoon guddi ak bëccëg nga xam na yow yaa waroon jël sa doom jàngal ko alxuraan suñu borom dogal na seet naa aada ñëw ba ci sa wet ne la sampal daara daara indi sa doom jox ma nga jël sa doom la nga xam ne danga koo télé moom mu jël nekkal la ca loola dala ca dimbale dala jàngal xale bi alxuraan léeg-léegi nga gis waajur woo xam ne war na ko nañ li xale bii di tari moom ci jëmmi boppam lott na ci ndax xamu ko kon lott dim ci lott ne koo ko defal mooy kan ak lan la ko war a delloo njukkal waaye mel na ni ñun fi ñu tolloo day mel ni ki jël sa doom di la jàngal alxuraan ci nga mën a gën a ginnaawal ki jël sa doom di ko jàngal français ci nga gën a mën a valoriser ba moom moom nga gën a moom nga gën a war a mën a jox wàccuwaay ba ci sax façon colin ñi nga xam ne ñaar ñi ñu ngi koy sol day wute en général bu xale bi di dem ca daara ja day mel ni dinaan ko yow loo sol baax na bu jëm école nag ñu toppatoo ko saytu ko ba mel na mu war a mel. naam ndax fii dafa war ndax fii bërëb bi mu nekk muy alxuraan ndax dafa du fekk ay moroomam ndax li muy jàng moom du ko war a war mal ndax li muy jàng dafa war a sol yële wu riche buñ ne ko foo jëm ne ca daara ji laa jëm damay jàng alxuraan ki nga xam ne jël na sa doom maanaam di def ci moom xam-xam kooku amoo fayam mbokk yi na ngeen xam ne ki nga xam ne fexe na ba doomam mokkal alxuraan ëllëg yowmal xiyaam bu ne tëll ñu xam ne kii. doomam mokkal na alxuraan damaa jëlale moom mi ko mokkal damaa damaa jëlale moom waaye saa bu sa doom mokkale alxuraan rek ëllëg ma man xëyam boo ne tëll su borom dee la décorer façon décoration boo xam ne képp koo la gis dina xam ne yow sa doom mokkal alxuraan loolu nag fii lañ ko mën a fàggoo damay wax ne surtout suñ mbokk soxna yi léegi-léegi ñu jël suñu alal di ko def foo xam ni léegi-léegi sax ay xiiroo ko naayoo rek lay jur ak jëwante ak yàqante ci loolu rek lay mujj lan moo tax mu ñu nekk ci koñ bi yëpp duñ def weer bu nekk fii yaakaar naa ne waroon naa am li ñu wooyee ay nday daara joo xam ne buñ ne woon ci daara ji buñ ne ana nday daara ji nga xam ne ñoo taawu daara ji ñu mën a wax ñu ngi nii mën a yëkkati seen loxo waroon naa am fii ndax bëriwaan na ci gox yu ma am te yaakaar naa ne gox dama gën am benn amul benn gox bu ci gën a yàllu Tuubaa waaw Serigne Touba képp koo xam digg diggam ak alxuraan xam ne léppam alxuraan la kon nit ki nag bu ñëw ba ci ab dëkkam dafa jàngale alxuraan kon yow mi nekk ca wetam war ngaa war ngaa fexe ba def sa kem kattan ba yiw woowu muy am yow nga di ko am tiyaaba jëmi am yow nga di ko am. Eh, mbokk yi ngeen nañu ak diwa rek ñu àgg liggéey mel na ni eh, waxtu waa ngi dem te am na yeneen kàddu yoo xam ne war naa jib ku mel ne sëñ Mara Ndiaye sëñ Daara ma nga ne. nekk ki nga xam ne moom ma fi teewal rabita bi du ñàkk incha allah bu noppee ñu jox ko ba am ay yoo xam war na ko jàllale. kon fi nekkoon rek ci tënk rek bu gàtt ndax mel na ni temps baa ngi dem euh, li ñuy sakku rek mooy yéen soxna yi yenn soxna yi mooy li may sàkku rek mooy mboolem soxna boo xam ni yaa ngi ci gox bi. yëg naa ne daara ji war naa am ay ndey daara te ndey daara yooyu man ma ko ci kenn ku dul yéen ñii toog ak bàyyi daara sax war na ko am ginnaaw bi ngeen toogee seen tegaayu jëkk bi nga xam ne sikki sàkk amul ci ne alxuraan rek moo leen indi ma bëgg ci yiwu alxuraan woowu kenn bañ leen ci ëppale mooy war ngeen a mën a taxawal loo xam ni saaru daaira lay doon maanaam saaru daaira lay doon maanaam day formé wu comme ne daaira di formé donte weer wu nekk kenn ku nekk ci yéen day yëkkati mille francs joxe ko loolu jàpp naa ne weer wu nekk boo yëkkatee mille francs bu dee kenn nit weer wu nekk bu joxee mille francs su ma jumul at mi trente mille lay doon yaakaar naa ne bu ngeen amee lu mat fukki personne wala ñaar fukk wala lu ko lool li muy gàtt gàtt gàtt gàtt ñu di leen ko defal ci liggéeyub daara ji soobaa loola tiyaaba jooju ci yéen rek lay dellu te it am nañu yaakaar bu baax a baax a baax ci yéen waaye yaakaar yëpp nag ngir bëgg bokk ak yéen yiw wi la ndax wóor nañu nañu ne li ñu tàmbali sikki saka amu ci ne incha allah rabbi dina àgg waaw kon may gis ne am na ci yenn bërëb yenn daara yooy dem. ya ëpp daanaka waa koñ bi ñoom koy taxawu daanaka sëriñ ba moom la ca ëpp daanaka jàng ak rek lay def waaye waa koñ bi ñooy yëg ne ñoom war nañoo tabbal wu ñaq ci biir daara ji boole seeni dërëm ak ñaari dërëm tabbal ko ci biir daara ji signal yu sàmm du woo kenn nag moom du wax kenn dara du ñu kenn naan damaa bëgg nangam walla nangam déedéet la cay nekk rek ab sëriñ daara noon la baaxoo def. mooy taw mooy naaj léeg-léegi sax weer bu am mburu doo ci am moom da koy def léeg mi du lu mu ci def li ko waral nag mooy mën a muñ ndax daara kenn ku ne xam na ni dafa laaj ak muñ ko yaatoo yaatoo yaatu muñ googu mu nag mooy waral saa bu saa bu ngeen yeexee ba tu tànk yi màgg mboolem la ngeen waroon def yëpp tu tànk yi ko def benn tu tànk rek mën na koo def ci ñoom moo tax ñuy wax ne Cheikh Ahmad Cheikh daan wax ne képp ku ma jàppale ci biir daara ji gaawal balaa tu tànkee màgg màgg gaawal balaa donga yee màgg ndax li tax loolu mooy donga yi mboolem li sëriñ bi dund dañ koy gis li sëriñ bi dund yëpp jafe-jafe yi mu dund yëpp tu tànk yi dañ ciy teg seen bët te lépp loo xam ne tu tànk teg na ci bëtam ci jamono bi muy nekk xale loolu day marqué ci xol bi loolu da koy jàpp mooy waral saa bu génnee ci daara ji rek bu ko barkeb daara ji toppee. bu dee ba tàmbalee faggu ay xewal suñ borom ubbil ko ay bunti xewalam daanaka daara ji lay njëkk a geesu dañuy gis dañuy gis dangay romb daara ji gis daara ji ñu toj ko yëkkati ko te ci biir liggéey googu en général boo xoolee ñenn ca dongo ñoo ko def kon nag loolu moo loolu moo tax ma ne daara ji tàmbale bi ñu tàmbali mu signalé sàmm li mu tàmbali am nañ yaakaar ne incha allah rabi dina àgg kon nag li leen bëggal mooy ngeen di jël seeni dërëm ak ñaari dërëm. tabbal ko ci yoonu yàlla wii waaw def ko ci yoonu yàlla ndax li du naxasaay bu mukk ba ilaa yawmi diin ñaari dërëm ñoo ci def incha allah rabbi dina la ko bindal ci sab téere ëllëg yawmal am ñu fay la ko kon nag liñ leen ñaan mooy yéen soxna yi am ngeen lu rëy soxna yi am ngeen loo xam ne ñu bari bëgg nañ ko te amuñu ko muy daara daara nag buñ ko waxee am nit ñoo xam ne léegi dañuy jàpp ne comme xale yi dugg bi ñuy dugg génn fii léeg-léeg ñu romb seen mbir ko daa léegi-léegi ñu dugg fii génn fii yooyu du dara loolu tolluwaayu xale la rek waaye saa bu ko rombee romb na ko saa bu ko rombee boo gisee tout tànk xale li tax mu doy waar mooy bu xale bi nekkee ci daara ji nga jël xale bi en charge di ko taxaw di ko tibbal añ di ko tibbal reer di ko jox ndekki bàyyi yërëm tilimee nga fóotal ko ko jeexatal jooju ala kulli xaalin du ko fàtte saa bu génne ci daara ji ak fu mu mën a dem saa bu loo léeg-léegi mu xool mu xool kenn rek xelam dam ci yow. te saa bu xelam demee ci yow jëf ju baax da nga ko daan defal faaw mu ñaanal la ko boo amee teraanga itam teraanga jëm am faaw mu delloo si waatal la ko faaw mu fay la loolu gis nga ko benn du ñaari yoon waaye mun na itam sawaam mun la bu fekkee da ngaa yor ay dong ci biir maanaam ci koñ bi léeg-léegi ndeysaan nga nga di leen xaw a xaw a xaw a finnaal tuuti maanaam ak donga ni mu baaxoo mel am na nu lay tuddee te it am na ay remarque yu ñuy def ndax la ko waral nag mooy jamono bi ñuy tudd tànk nga loolu loolu moom moom nga ko doon ci ñoom installation boobu nag day dem ba dañ koy màggaale moo waral saa bu ñu demee ba duggee ci daara ji bu ñu la gisee daan oh sama ne fekk ne oh ñu wax am na am na lu muy signifié waaw ba tey itam même mu dee lu baax itam maanaam maanaam maanaam noonu kon xam naa kaddu yi du gudd li ma doon li ma li may sàkku rek du ñàkk yéen soxna yi war ngeen mën am xalaat ci daara ji waaye ci biir xalaat boobu yëpp nag ngeen yëg ne maanaam da ngeen ñuy liggéeyal suñu borom bëgg koo jaare ci daara sëriñ Aliou Sam ndax sëriñ Aliou Sam mi lépp lu ngeen ko defal defal ngeen ko mboolem sëriñ daara yi nekk fii yëpp waaw kon nag ajowul maanaam ngay dem ba ndakaaru wala ngay dem ba beneen beneen gox dafa def leneen ngir bëgg ko la tagg wala déedéet daara ji nga xam ne moo la gën a jege nga xam léeg-léegi say doom fi ñuy defaroo ba soxla woon ab kaamil ci sëriñ Sam ngay ñëw ba soxla woon ko la léegi ci sëriñ Aliou Sam ngay ñëw kon leneen la nga jël di ko yóbbu ci yeneen daara yi kon jàpp naa gën a yàlla te lépp loo defal benn sëriñ daara defal nga ko mboolem sëriñ daar yëpp kon li ñuy sàkku ci yéen yéen soxna yi li leen di ñaan rek te am nañ yaakaar ne da ngeen ñu ko may mooy ngeen takk ba dëgër dugal seen loxo baax a baax a baax ci loxo bi nag mooy nekk loo xam ne day continuer doonte ñaari nit la sax maam lañ nekk ñoom lañ gëm ne li ñu nekk nii suñu borom lañ koy liggéeyal nekk génte nekk mooy dem ba bu ngeen bëggee mbooloo incha allah rabbi lépp da daal jàppande kon daal li ma leen di ñaan te du ko sàkku ci yéen bu fi jàllee ngeen xool bu baax ngeen xoolaat bu baax seen toogaay ci digg seen seen digg ak daara ji loolu ñoo leen koy ñaan baax a baax tey am nañ ci yaakaar ci ne danañu ko may ndax wër nañu ne ba ngeen tooyee ba léegi alxuraan rek moo leen fi bàyyi kon ñoo ngi ñaan tiyaaba ji nga xam ne moom la mooy juddoo ci biir daara ji suñ borom wisaar ko ci mboolem koñ bi yëpp wisaar ko itam ci mboolem daara ji yëpp te ngeen ñaan bu baax liggéey bi suñu borom def ci barke. waaw kon kon daal loolu mu nekkoon kàddu yi in uridu illa lislaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jataay bi te mooy sëriñ Aliou Samb di sant suñu borom bu baax moom mi nga xam ne moo ñu baaxee ñu teewee ci jataay bii xam ne jataay ëpp na ko mbooloo jataay gën na ko siiw waaye mu ëpp jataay ba fopp barke ëpp ko yaakaar ëpp ko tuyaaba yàlla gën cee bég ca ba ca jataay ba ko gën a ëpp ndax jataayu alquranul karim la Euh, ñu ngi wax nag ci kàddu rabitatul madarisil qur'aniya muy euh, ligue bi nga xam ne dafa dajale lu bare bare bare ci jàngalekat yi alqur'an yi nekk ci Touba ndax rabita bi luy tolloog ñaari junniy daara ñu ngi ci biir rabita bi yu teg euh, Touba nekk benn faran ci faran Touba bi rek ñaari junniy daara ak lu topp mi ngi ci ci biir faron bi am na luy tolloog euh, fanweer ak juróomi euh, sous section ñu di ko xaliya kon section Touba am na fanweer ak juróomi sous section sous section yooyu am na ci sous section yoo xam ne la ca nekk ci ay daara mat na ñeent fukki daara kon mbooloo la euh, kon su fekkee ne am na lu mel nii te sëñ Aliou mi bokk ci raabita boobu ndax mu ngi bokk ci xaliya bi nga xam ne tey man maay maay mu nax mu ba muy xaliyatu bustaanul aarifin sëñ Aliou sambu mi bokk ca kon lu mel noonu buñ ko wootee rabita bi daf ci war a teew membre am yëpp ñoo waroon teew waaye ginnaaw jamono ji xat na ñu yebal ma rek ma teew fi ginnaaw man maay mu nasiqu xaliya bii nga xam ne mooy xaliyatu bustaanul aarifina te sëñ Aliou Samb bokk ci ñoo ngi leen di ñu di leen ziara bu baax di leen ndokkeel ni ma ko waxee woon léegi jataay bi jataay bu am solo la jataay bu yaakaaru la jataay boo xam ne li tax ñu daje mooy yokk liggéeyu daara ndax du ab tàmbuli ndax la sàkk ci ne daara ji ay nit mokkale nañ fi alxuraan ay nit bind nañ fi alxuraan ay nit wàcce nañ fi ay nit miine fi kon du luy tàmbuli waaye lu ñu yokk la ndax kuy dox danga bëgg di yokk loolu nag mooy mébétum Serigne Aliou euh, bi ñu gisee plan bi nga xam ne moom la bëgg a def daara ji soo koy xool ci daara nii rek ak ni daara bindoo dangay wax ne lii mustaxil la mënta nekk waaye ak a mën a nekk ndax lu tax suñ borom subhaanahu wa taala moom mooy borom daara waaye dafa am lum làq ci ginnaaw lu baree baree baree bari daara boo koy séen ci kaw gi nii léeg-léeg doo ca xemme ma def dara su fekkee yàlla baaxewu la waaye cëy boo xamee la ca biir cëy boo xamee la ca biir loo fa dugal suñu borom subhaanahu wa gis ko te bu ko gisee dana ca bëgg bu ca bëggee dana koy fay bu koy fay da koy fay ak dooleem moo tax suñ boroom doon wax ne wa man yuqridu llaha xardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim kan mooy lebal yàlla njekk kuy lebal yàlla njekk yàlla soxlawul dara waaye bëgg gum bëgg jullit yi ak yërëm leen moo tax muy waxee ak ñoom ci xeetu waxin wi kan mooy lebal yàlla njekk bu ko yàlla fay ful ko eh, aay boobu bi mu wàccee ku ñu wax abu daxdaa benn saxaaba bu ñuy wax abu daxdaa dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko aayoo ki yàlla yónni waaw yàlla moom kon day sàkku ci ñun ab borom day sàkku ñun ñu lebal ko yonent bi ko waaw yow mu daal ne ko loxoom mu daal di jël loxoom moom abu dax daa teg ca ne ko lebal naa yàlla sama tool bi fekk amoon na benn tool tàndarma boo xam ne juróom juróom benn téeméeri tàndarma ñu ngi ci biir yoo xamante ne bi yépp ay mu ne ko kon lebal naa sama tool bi yàlla jamono bi mu koy wax ummu dahdaa mi ngi ci biir mi ngi ci biir tool bi di for ci tàndarma ji ànd ay ay doomam bi mu defee loolu rek abu dahdaa daal di ñëw woo ko yaa ummu dahdaa mu wuyu ko mu ne ko tool bi lebal naa ko yàlla fekk li nga xam ne jotoon na koo for sax ba def ko ci euh, kimbukaayam ëmb ko nii abu daxdaa da ko ne sotti ko foofu moomatuñ ko lebal naa ko yàlla noonu la ko sotti moom ummu daxdaa ànd ak njaboot gi ñoom ñëpp ñu génn tool bi bàyyee ko yonent bi alayhi salaatu waaye foofu liñ fiy jànge mooy ummu daxdaa mi nga xam ne mooy soxnaas abu daxdaa ndax taxawaay bi mu am na ko soxna yi xool bu baax gis nga bi mu defee loolu bi ko bi ko abu daxdaa ne ko sottil loolu bàyyi lebal naa ko yàlla tegu ci baat da ko ne ah yow kat sab commerce sab commerce kii na kat bon am na bénéfice kat sab commerce am na bénéfice kat daal di ànd ak moom génn ndax suñ soxna yi danañ def loolu boo muyul boo muyul ku ko ci defoon tey am nga magasin boo xam ne ay nangam million ci ne te xam ngeen ne tàndarma mooy richesse su màkk ci jamono yi ndax amuñu mbay amuñu dara loolu sax madina la ndax abu dahda ci ansaar yi la bokk wala kulli haal màkk ak madina ñoom ñëpp seen richesse bi gënoon fort moo doon tàndarma waaye nga am ci lu tolloog juróom benn téeméer yi garab yi tàndarma yuy meññ ci ay meññit yu wuute ci session yu wuute nga mën a jël lépp aaya bu wàcc rek nga mën a jël lépp jox ko jox ko yàlla ba noppi ànd noonu génn ak sa njaboot soxna si moom it yàlla baaxe ko lool mu di ko tagg naa ko yow mi sa njaay mi moom am na bénéfice moom cey ku ko ko defoon am naa magasin fii magasin bi saa bu soxna si soxlaa ca lay dem jël benn bis ma xëy xëy rek sëñ Aliou taxawal daara ji ma daal di ñëw ne sëñ Aliou sama magasin ba nefee day lebal naa ko lebal naa ko yàlla jël ko def ci daara ji fekk soxna saa nga fa xëyeen ñëw di jël si dépense mën na ko ay eh, dépense boobu bàyyi ko fi ci ay bu ñibbee bu wut chance di nga dem wutiwaat soxna wala nga dem yendoo fay li loolu nag dafa war dañ dañ ci dañ ci dañ ko war a sori lool ndax ki ñuy lebal mooy kan yàlla kan moo sàkku ñu lebal ko yàlla kon mën ngeen lebal yàlla ci daara jii ak daara ju mën di doon gis nga ki am chance dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki dëkk ak daara ndax yërmande ji nekk ci baatinu daara ki dëkk ak moom du ko xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ay mag dinañ tooñ yàlla di tooñ yàlla yàlla mer ba yëkkati am mbugal nar ko nar leen koo xëpp waaye mu xool seen ay dongo yu toog di jàng alxuraan ci ci ci ci ronu ci ci ronu ronu mbaar wala ronu garab seen daara bu di jàngal yàlla ne ah ñee de tax nañ du ma wàccee mbugal mi daal di añ mbugal mi wala mu yóbbu ko feneen foo xam ne loolu fa wallahi luñ daan mbugale aw xeet rek suñu xeet wi yéen koy def waaye lan moo tax mbugaluñ leen donga yii di nekk ci ron daara yi di jàng bokk na ci lañu aar kon nañ leen sàmm nañ leen jàppale nañ leen sàmm nañ leen jàppale sëñ daara yii wallahi ay ay nitu yàlla dëgg lañ koo ci seen muy dem ni sëñ bi léeg leen nga seen kenn muy waaxu naaj wa tàng jër muy waaxu di dem nga romb koog sa oto jàpp ne ah yaa Allahu akbar cey ka nga romb boo ko xamoon boo xam daa xëyal yàlla ba wàcc jot gontal yàlla maraxul yàlla ñëlul yàlla lépp mu ngi ci téere yàlla bi kooku sëñ bi képp ku bëgg bénéfice loo am jox ko ko loo man defal ko ko soo amul loo ko jox loo ko defal nga défendre ko moralement mooy lan mooy soo déggee ñu wax ci moom ab safaan nga taxaw ne ko dé ni leen déedéet kii di jàngale alxuraan ngeen di wax ci moom lii bu leen ko defati soo gisee ñu tuumaal ko naka sudul noonu taxawal dindi tuuma ja ndax du dëgg bu dëgg waaye tey léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaan day jàngal gune ba mokkal waaye wallahi fu ñu koy waxee lu bon woy juru kam doon jàngal boo moyul bu ca fekkee sax boo ko fekkee sax moo cay gën da cay jël ab cëram ba mu doy sëkk naan sama doom fa doon jànge waaye moom li mu ko woon dafa soxor nangam nangam mas naa ko mas naa koo ak mas naa ko ne ko nangam loolu du ngóora di loolu wax dëgg yàlla du ki nga xam ne saa bu xëyee dafa bàyyi itam yëpp yow nga xëy dem ca marché ba wala nga dem ca bitig wala nga dem foo yaa xam foo dem mais sa bopp nga bis ak ndogal dal ko ci kese kese nga ñëw àkk ko te la ci gën a bon mooy àkk bu ñu koy àkk ci kanam dong yëpp lañ koy am na ñoo xam ne bu ñuy àkk sëriñ daara bi dañ koy fekk ci kanam dong ngay mu toog di jàng foofu nga xam ne valeur am da ko war a yëkkati ca kaw fekk ko fi nga xam ne même boo ko fekkan mu mu mu def lu garaaw sa doom sax boo ko fekkee ci biir xalqa bi wallahi da nga faa war a yokk valeur am waaye foofu lañ lay fekk toroxal la léegi fan yaa ci ginnaaw rek daaw daaw de am na fi suñ daara boobu ndeysaan na lañ ko fekk dóor ko ci wallaahi ay nit a ko fekk sot ko dóor ko sama xol bi keroog jeex na torox man ku ma ko defoon damay tëdd ci kaso gi waaye maag yow moom danañu àtte te bu ñuy àtte kaso lañ may àtte waaye nag ndeysaan seen baax ak seen ki kon nañu moytu lu baree baree bare ba suñ daara yi dinañ alak ñu baree baree baree bari te duñu yëg ne alak nañ leen njabootu yàlla lañ yonent bi salaas moo ko wax yàlla am na waa kër ci kaw suuf ñu ne ko ñuy waa kër yàlla mu ne ñooñu alxuraan ñooñu ñooy waa kër yàlla ñu ci doon waa këram waaye yàlla da leen a jaglool boppam ahlul quraani ahlullahi wa xaasatuhu ñooñu nag boo bëggee jàmm deel wax ci ñoom jàmm del def ci ñoom jàmm dee leen yéene jàmm ndax moom lu man xew moom dinañ nekk ci ko suuf si téeram yàlla bi lu man xew adduna bépp bu tasoon def ko ay kaso bëgg tëj seen daara yi ñëpp dooni soldaar di jàpp sëriñ daara yi ñëpp doon ay waxkatu la lu ñaaw di wax sëriñ daara yu ñaaw du tee ay sëriñ daara nekk ci kaw suuf si di jàngali téere bi yàlla bi nit ñi di ko mokkal duñ ci mën dara ndax loolu mooy li neex yàlla inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun amul kenn ku ci mën dara kon nag bëri ko boo xam ne daa tege ci mbartal boo puusee mu dem boo puusee mu dem wallaahi tegal sa loxo rek bokk ca ndam la lii mooy jàppale daara kon liggéey baa ngi nii ku ci def dina egg ku ci defu dina egg ñi gën a am sens nag mooy ñi dëkk ak moom bu ñu xamee li ñu am nañ ko exploité nañ exploité sens boobu bëggumaa guddal ndax guddi na te am na xañ ne yeneen yu fi war a jàll waaye daal li wér bi wér mooy na ngeen xam ne fii loo fi def lebal nga ko yàlla te yàlla ku ko lebal hal jazaa'ul ihsaani illa l-ihsaan yàlla nee na njekk ndax du njekk doo nga koy fay aha kay kon nag mi ngi nii sëñ Aliou na seen xel dal wallazina jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulana yàlla nee na ñuy jihaar te man maa tax ñu jihaar man maa leen di orienté wala leen yoonu ñuy aw eh, góorgóorlul te te te te te takk saw fit rek lépp ay baax incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi siyaare ñëpp di siyaare am di ak mboolem mbokk yi fi nekk salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di leen nuyu di leen ziar di nuyu suñu kilifa yi toog ak suñu di leen ziar bu wér man ah di nuyu Aliou Samb mi te xam ne ñun amuñu fayam ñun ñooy waajuroo xale yi ñoo nekk ci koñ bi waaye Aliou mii amuñu fayam ndax ku mën a yor sa doom ci daara di ko jàngal arxuraan xam nga kooku amoo fayam arxuraan moom gisuma lu ko gën a màgg ci kaw suuf kon nag dañ koy ñaanal yàlla lii mu mëbét yal na ko yàlla yeggali te ñun luñ mën dinañ ko ci def dinañ ko ci jàppale dinañ ci def suñu yéene luñ ci mën dinañ ko def amuñu fayam daal Aliou daal moom mooy nii rek dañ koy bàyyee yàlla rek yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay te liggéey bi mu jëm yàlla na ko yàlla yeggaleeg jàmm ba suñuy sët sëtaat di ci jàng ca barke baayam ba samay doom depuis papaam nekkee fii la la gone yi newoon ci daara ji day ñëw ci kër yi di leen nemmeeku waaw ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla na suuf sedd ci kawam ñu ngi koy ñaanal bu wér ndax lii moo ko sos ba tey Aliou mii jaar ci ay tànkam dañ koy ñaanal mu sut papaam fan di ko ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla yeggaleeg jàmm jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki alquran yi ñu ngi leen di nuyu gën jaa sell nuyoo di leen ziyaara di ñaanal Serigne Saliou Samb sun boroom yokk ko yërmande yokk ko daraja ci jannatul firdaws ak mboolem way dawlu jullit ñëpp siyaare bu baax kilifa yi sëñ Hamdi ak mboolem wëllër yi ak sëñ daara yi yëpp sëñ si Abdoog ñëpp di siyaare sëñ Aliou Samb sëñ Aliou wax bu kenn waxati Aliou Samb ndax sëñ Aliou Samb li tax mu nekk sëñ Aliou Samb mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla joxe alquran daf ko orienté ne ko képp ko xam ne bëgg na laa jox sa wàccuwaay na la wax ne yow mi yow yaay siraaj bi siraajam muniran la yàlla tudde alquran te foofu la baatub sëriñ jóge lan mooy siraaj mooy koo xam ne ku yor la ak niitu nekk ci digg màndiwu lëndëm mu am ay ngiro mu ànd ak ay nit yoo xam ne war naa fexe ban jàll faw kon ci li nekk ci loxoom tim niitukaay rek lan mën a jàlle moo tax mu nekk ab sëriñ nan wax sëñ Aliou Samb bu ko defee yàlla na ko yàlla dolli wér te dolli ko taw tawfiix yokk ko kàttan mbokk yi li sëñ Mara wax xanaa sant wi rek ko ko yàq waaye manees na ci sukkandiku ba déwén incha allah alquran moom mooy géej goo xam ne kenn ku ci nekk mën nga ca am moddinu féewukaay woo xam ne sa soxla danga ko ca jël te doo laalanteeg sa moroom dara loolu rek moo waral kiitoog toog jug kii toog jug toog jug waaye lenn la mooy daara ji daara nag alal moo koy def alal moo koy taxawu signaliwu mii lim am ak lim man def na ko mooy lan mooy dogu pas-pas bëgg waaye la ci des mooy joxe jotam joxe wéram joxeem xelam lépp def ko ci daara ji la ci des nag lay tax ba njàngin wi ñoŋ nekkin wi ñoŋ loolu moom jullit ñëpp koy sot alquran dañ koy sot soto sotoo mathalu am yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah bu ko yàlla waxee jullit bu ci nekk li tax nga war a yittewoo alquran ndax alquran lettre la boo xam ne dafa jëm ci kenn ku ci nekk nga am masuliya responsabilité boo xam ne dangaa war a xam lan mooy li ci biir buñ jëlee aaya boobu ba jël ca kamasali xabatin ambatat sabaa la fii kulli sumbulati miatu xabba wallahu yudaafu liman yasa mooy daj dëpp gi gis nga alquran dafa dafa yomba dafa yomba tegtal aw nit pour fun mën a jaar ba am ngërëmal seen borom waaye jàkk baax na mbokk yi jàkk baax na jumaa baax na hôpital baax na waaye daara nag mooy bopp bi ndaxam bu fekkente ne tabax nga jàkka mu rafet na mu war a rafetee mel na mu war a mel rajo yo baax lool ndax boo gisul imaam bu mën a taxaw ci kanam mbooloo ma jàng alxuraan ju wér ñu laaj ko ay masala mu gàgganti leen ci lu wér ndax boobaa jàkk ji dana saf xorom déedéet bu safee xorom it xorom sa daa ëpp waaye alxuraan mooy daara mooy fondement bi nga xam ni moom la yàlla di wax ne kuy lebal yàlla ci nii ma fayee la ci num ma neexee wallahu yudaafu liman yasha bu ko defee yéen euh, mbokk mbokku gox bi muy góor ñi muy jigéen ñi li sëñ Mouhamed wax léegi fii mooy daara ji signal yi dafa bëgg a yi kon nanu fexe ba bu nu fi teewaatee ci incha allahu taala di ko ubbi nanu wax daan ne waa gox bi kat ñoo jàppee nii ci daara ji ginnaaw bi ñu tegee xeer bi keroog loolu moom soxna si toog fii léegi comme biñ biñ woowee soxna yëpp moom moo jóg yóbbul leen seeni kàddu mission boobu gàll nañ ko ko nanu lijjantiku ndax daara danga koy sot ñi koy yëkkati nag mu ngi tàmbalee ci dong daara dongab daara sëriñ daara Seydina Ali karamallahu wajaha li mu wax mooy ku la xamal benn xaraf mooy sa boroom maanaam moo la moom tey jii bu fekkoon ne jamonoy njaam a ngi dox Seydina Aliou mii mën naa bari xaalis ndax fi mu doon ni doq yi ma gis ku ko ji reex mu gàll ci guumam dem ci marché ba jaay dara du ko ci fekk Seydina Aliou moo ko wax man allamaka xarfan fa huwa mawlak ku la xamal benn xaraf kooku sa boroom la sa sañ na laa jënd sañ na laa jaay léegi nag alal ji tabax daara dafa sax ci xol alal jooju nag dañ ciy royee saxaabatul kiraam yi ni ko Sëriñ Tuubaa waxoon ñu ne mu ne ñoom faat laful amwaala bil infaaqi iz malaku nufusalan bistirqaaqi ñoom danoo jëloon seeni bakkan jëloon seeni bakkan tàggat ko ci yoonu yàlla xam lan mooy ngañaay génne sa sa sa alal defal ko yàlla moo tax lépp lu yonent bi sallallahu alayhi sa soxla ci jumtuwaay buy defal buy yokk diine ñoom dañ ciy def ba def ci lu mënut Seydina Abu Bakr karamallahu wajha ak Seydina Omar am nañ benn jongante bu mag bu doxoon seen diggante yonent bi dafa laajoon dafa laajoon alayhi salaatu wasalaam ay ndimbal yoo xam ne dafay jëm ci jullit ñi euh, Omar jël alalam xaaj ko ñetti xaaj jël benn ba indil ko yoon def saa salaam Ousmane bu Affan jël alalam def ko ñaari xaaj jël benn ba indi ko yoon bi saa salaam Seydina Abubakar dem jël këram alalam kuddu yaag bool yu ndaw ndawaan yaag xeetu desit desu desitu reer yaag boole koog alalam ak diinaar yeeg yëpp andil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar daal ne tey de moom maa daqa rawante ci woote bi yonent bi salaam yonent bi ne ko loo joxe mu ne ko sama alal dama ko xaaj ñett benn bi mu indi ko benn bi ma bàyyil ko sama njaboot ndax yaa ne woon lu nit di joxe na ko tàmbalee ci njabootam si yonent bi daal di gees Aboubacar ne ko Aboubacar yow noo def mu ne ko sama kër la fa nekkoon lépp a ngi nii desewuma dara. loolu mooy jaayante gi nga xam ne moom la saxaaba yi doon jaayante ba lislaam ak fii tey ci ci ci ci ci sunu jamono tey ji dëkk bii di Touba nag ñi ko dëkkee ñoom jàmbaar la la war a doon ci lépp léppi diine waaye li ci war a gën a fedd li ko gën cee mooy jàmbaar ci alxuraan jàmbaar ci alxuraan ndax Serigne Touba kat moo ne lépp lu mu am muy nuru ak may lépp lu mu am muy nuru karaama lépp lu mu am muy nuru ak tedd nga mu ne loolu lépp yàlla mu ngi ko ko jagleele ci téere bii di alquranul karim te nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon na juróom ñeent ngi ni yoo xam ne benn bu ne ji benn jéem a la nekk benn ci juróom ñi te bañ a bañ a nekk ba koy juróomee leel mooy nekkal kuy jàng alquran ndax Sëriñ Tuubaa sax waxoon nañu ne bu fekkente ne da ngaa bëgg a jege sa boroom del téye alxuraan nikk waaye te bul ko bàyyi mukk boo bëggee dem rek del del del del jàng alxuraan te bañ koo bàyyi beneen bi mooy del jàng kon mooy bi ci njëkk beneen bi mooy dee ko jàngale mu daris nga xam ne nii xayriya bi yàlla gàll ci ku ku kuy jàngale alxuraan ngëneel googu toog di nelaw ak tëdd tëdd tëdd tëdd di noflaayu loolu mënta may xayriya boobu ñaareel bi mooy nekkal koo xam ne dangay ngay bëgg kiy jàng alxuraan ak ki koy jàngale di ko bëgg bëgg mooy mu gënal la sa bopp ndax yàlla kat boo ko di wut ci mbir yàlla dafa lay gënal sa bopp dégg nga ñeenteel ba mooy nekkal kuy dimbali kiy jàng ak kiy jàngale kon yow mu dëkk ci gox bi te yàlla wërsëgeewu la nga man alxuraan ba man koo jàngale yow li nekk sa yitte mooy nga bëgg daara ji bëgg gi mooy premièrement ngay défendre daara daara ay dëkk dëkkandoom ñoo koy défendre ndax tey jii daara bu nekkee ci gox benn jafe-jafe daal di fay feeñ la ñu laaj bu ñëwee mooy xool dëkkandoo ya nga xam ne nii ay noon lañ ca daara ja ñoom ñooy jàllale lépp boo ko defee kon yow yonente bi nee na fexeel ba nekk ku bëgg kiy jàng alquran ak bëgg kiy jàngale alquran wala boo nga nekk kuy dimbale kiy jàng alquran ak kuy dimbale kiy jàngale alquran waaye nag bul nekk juróomeel ba juróomeel mooy la mooy ki leen di opposé ki nga xam ne nii lépp luy tas mbooloo mi lépp luy yàq derub daara ji lépp luy wilimbaane yëfi daara ji moom ci lay dox ci lay gontu loolu day yonente bi nee na bul ko doon mukk ndax loolu fayam amul dara lu dul jahannama yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk yi alquran a ngoog alquran nag fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada gis nga képp ku bëgg ëllëg yamal xiyaam yi sunu boroom làkk la ci aljanaam jooju nga di ko gis di ko teg bët muy muy mu mu mu di la teral ci aljanaam jooju yàlla neen na nga jëf jëfin bu baax ci àdduna jëfin bu baax nag dara ëpp ci sécurité defal ko ci alxuraan ndax mbaar mii sañaaliw naal fii bu yàlla dogalee ba kenn ku nekk dugal sa dërëm wala soo ñaar dërëm wala ciw ñaar fukk sax mbaar moom yi saa bu keralee ab donga muy jàng alxuraan xaraf wu mu jàng ci biir ker gi yow mi ci dugaloon sa dërëm nga am ci yiw wa saa bu ngelaw ñëwee miir bi protéger ngelaw li ba du ko yàq li muy jàng yow mi dugaloon saw dërëm ak sa juróom nga am ca tuyaaba jooju saa boo xam ne nii donga bi mu ngi jàng muy taw waaye mbaar min ko mbaaral protéger ko ba taw bi mënu ko yàqal am njàngam bu ko defee yow mi dugaloon sa dërëm ak sa juróomi dërëm yiw woowu di agsi ci yow loolu mooy toog muy dox toog muy dox loolu muy dox mooy nga jël saw ñàq dugal ko ci mbaarum alkuraan dem nekk ci yeneen yitte sëñ daara baa ci tàngoor yi sëñ daara baa ngi ci riir mi mu ci coow li mu ci mettit wi waaye yow yaa ngi sa diggub lal yow di nelaw ñuy bindal sëñ daara bi di la bindal ay way lu am solo kon jël saw ñaq nga dugal ko ci daara boo ko defee mu nekk sa garde boo xam ne da nga ko da koy garde pour ëllëg ndax gis ngeen bàmmeel biir biir biiru biir la woo xam ne lu ca waay tàbbalul doog ca fekk te Sëriñ Tuubaa waxoon na ñun taalibe yi lu leer naññ mu ne liggéeyaluma leen sama bopp laay liggéeyal jaamuluwuma leen yàlla sama bopp laay jaamul li ma warloo ak yéen mooy bind naa ba fi wax naa ngeen dégg jàngale naa ngeen ngeen ngeen gis kon sëriñ bi li mu ñu tegtal leen la rek mooy yoonu mbaax nanuy fexee ba jaar ci ëllëg yamal bu buñ ko gisee man koo xàmmee waaye ku jaar ci ñàll wi nag ëllëg yamal xiyaam gis Sëñ Tuubaa moom jagleem yi ak mayam yi fawu dana ca yàgg waaye nag naka ngay fexe ba xàmme sëriñ bi mooy sa jëf yu baax ak ndigal yim la bàyyi woon nga fexe ba nekk Sëñ Tuubaa nag ñu lu ko gën a ñor alxuraan bàyyiwuñu lu ko gën a ñor alxuraan ndax ku dem ba seppi fi julli teg nee jël jël naafi la teg nee jël lépp teg nee daan ne la boo bëggee jege yàlla daal jëlal alxuraan wan araada al qurba min mawlaahu fal yaqra il qur'aana la yenn yansaahu privilège boobu mu jox alquran ba wax ne mboolem lu ko suñ boroom jox ci alquran la ko amee loolu moo ñuy tegtal na suñ tubaa bàyyi lu ñu lu ko gënal alquran alquran nag du ay fooy yi ñuy gis wala wala wala wala wala mbind mu ni gis rek déedéet alquran sàmm ko mooy sàmm barab bi mu koy wutee ba mu mën a ñoŋ ba ñu koy wut nekk ci condition yu baax yoo xam ne ni dana dem ba mu yàgg lépp luñ soxla danañ ko danañ ko am ni mu ko bëggee te du leen yàqal dara bu boobaa yow jàpp nga ci alquran yëkkati nga alquran. aousu billahi min aseytaani rajim wa inni u'iizuhaa bika wa suriyatahaa min aseytaani rajim rabbi aousu bika min hamasaati sayaatiin wa aousu bika rabbi an yaxduruun mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te jiital ci nuyu ak siyaare yi sëriñ Mahamadul Muntaxa te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko suñu kanam te dolli ak wéram. te kattanal ko ba yéene ji mu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu àggale ko te lépp ñu ànd ko ak moom ginnaaw loolu ñuy siyaare kilifa gox bi muy sëriñ Mamor mi nga xam ne mooy kilifa gox bi moom it di ko ñaanal yàlla suñ boroom yéene ji mu am ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alxuraan suñ borom gën ko yàggal ba ba mu gën ci am lu kawe njort ci barkeb Sëriñ Tuubaa mu mel ne ñu ngi siyaare bokk yi fi teew yëpp rek ci turu sëriñ Aliou Sàmm mi nga xam ne moo woote bis bu am solo bi te bis bi di bisub alquranul karim ñu yëkkati ay kàddu yu sëriñ Aliou Samb mu jëme ko ci waa gox bi rawatina nag ñi nga xam ne dañ fi indi seen njaboot tam yor leen di leen jàngal te mel ne na jàmbatuñ ci dara sëriñ Aliou nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax ndax wax na ne lum mu bëgg a bëgg a jàngale te joxu leen ko ay dongo du mën a jàngale yiw woow yi nga xam ne yàlla santaane ko ci jàngale wax ne kiy jàngale alxuraanul karim su tegee alliwo ci tànk gone gi ne ko neel baasin niim ñu jéggal ko jéggal ñaari waajuram jéggal sëñ daara bi ko doon jàngal ak donga bi ne loole su leen ko joxutoon doom seeni doom yiw woowee du ko mën a am nee na ko mi ngi leen sant ci loolee bu baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom képp ko fi indi sa njaboot muy jàng wépp araf wu mu fi jëlee yàlla na barkeel ci barkeb sëñ Tuubaa Seydina Aliou daal nee na sant na mboolem waa gox bi ci taxaw gi nga xam ne ñu ngi koy taxawu daara ji taxaw gi ñu taxaw taxawu daara ji nag moo tax itam mu xam ne daara ji tolloo na ci ak war a yeesal mu bëgg a liggéey boobee bëgg koo ànd ak yéen bëgg koo ànd ak yéen ni ko sëriñ Galas waxee ci njëlbéen gi bëri na fi ñi fi jàngee alxuraan ba mokkal. ñun ñii suñu rakk jàng nañ fi ba mokkal am na ñu fi mbindub kaamil te suñu njaboot ñu ngi ci daara ji jàng nañ fi ba wàcc kon loolee mu wax mel na ne Seydina Aliou xaarul kenn ci daara ji da cee nekk waaye daa xam ne barab bi war naa mën a am soppeeku moo tax mu bëgg a soppi da barab bi gën koo méngale ak ni barab méngoo kon loolee moo tax mu ci woo mboolem képp koo xam ne lu baax ñor na la rawatina na nga bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa yoonu liggéey Sëñ Tuubaa wu yaatu mi ngi nii muy alxuraanul karim kenn ku nekk xam na ne Serigne Touba radiyallahu anhu amul lenn luñ ko mën a bëggee lu lu alquranul karim yàlla ak yonent bi ak karim ndax bëgg gi mu bëgg alquranul karim weesuwut képp ko xool ñi nga xam ne ñoo ko nekkaloon ca tool booba dañ koo liggéeyal mu sëñ daam Abdourahmane bokk na ca kenn ku ne xam na ne da koo sàkkaloon ay ndaw yoo xam ne lawar war ca daara ji lépp ñoo ko gàdd woon ko te loolee kenn ku ne xam na ne kuy bëgg kuy wër kuy wër bëgg sëñ Tuubaa ci alxuraan nga war a tàmbalee jéem a xool barab ba ñuy jàng alxuraan ndax méngoo ne ak jamono ña fa nekk ndax seen nekkin baax na su fekkee ne nag xool nga melokaan wa des na nga war a fas yéene saw ñàq dem ca barab yoowee te barab yooyu nag benn jiituwu ci barab bii benn jiituwu ci barab ndax ki fi nekk ndaw la waaye ndaw la am pas-pas la ku am yéene la ku am ku am yéene ci liggéey bi ko ku am yéene ci liggéey bi la kon nag yéen waa gox bi rawatina soxna yi ndax liggéey bu mel ni foo ko mosaan gis soxna yi ñoo ci daa man góor ñi yéen soxna yi kon liggéey bi seen liggéey la bu leen tekki seen laxasaay xam ne liggéey bi lu ci waay def boo fi nekkee xéewal gi da fekk fi ngay dunde soo liggéey boo jiitu fa nga nekk xéewal gi da fa fekk kon ñi ngi ci woo ñëpp ta xam ne liggéey bi yàllaa ngi nii képp kuy wër wër bëgg sëñ Tuubaa wala ngay sàkku ngërëm moom na xam ne ci lii la gën gaawee ndax alxuraan moo nekkoon bëgg sëñ Tuubaa kon Seydina Aliou nee na mi ngi sant mboolem bokk yi nga xam ne bi mu wootee wuusi nañ ñi nga xam ne tam am na ci ñoo xam ne tàmbali ñoo andi seenu ñàq ci liggéey bi tàmbali ñoo andi seenu ñàq ci liggéey bi kon ñu ngi soññi ñi nga xam ne am nañ ci yéene lu baax lu mu gën a gaaw gën ca te lu mu gën a bari gën ca rawatina lu jëm ci alquranul karim nee na kon mi ngi sant ñi nga xam ne jëf nañ ci ay jëf yoo xam ne nii agsi na ba miñ ci daara ji ñu jëfagut te am yéene jëf te xam ñuy def lu baax itam ñu soññu leen ci loolee kon Seydina Aliou nee na mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi tey ànd ak moom liggéey bi rawatina sëñ Mamour mi nga xam ne mooy kilifa gox bi tey kilifaam ndax bi ñëwee ci gox bi waajuram andi ko fi foofee la njëkk tàmbalee am njàngam alxuraanul karim ba lu ci bëri fa la ko jànge nee na moom itam ñu koy sant bu baax a baax te di ko gërëm tey xam ne daal liggéey bi tàmbali nañ ko te fas yéene ba dañoo bàyyi daa àgg waaye kenn ko nekk nag na nga fexe ba bul ci bokk ñiy seetaan na nga bokk ci ñiy jëf te bu la kenn mën ci jëf ci ndax loo ci jëf yàlla fay te yàlla ak fayam du tuuti kon ñi ñaan suñu borom àggale liggéey bi fu kawe njort balaa yàgg mu àgg ñu ñu ñu ñu ñu dajawaat fii di ko ubbi ngir liggéey bi mën a woy a wéy ci barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ